Bienvenue sur Salam Vision. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري waxlul uqdata min lisaani yafqahu qawli wa baadu salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dellu si waat nañu fii seen émission yi jotaay mag yi dimanche bu jot à partir de 11h fii ci Salam Vision ànd ak seen ki nga xam ne moo koy présenté am mbégte ak kontante am mbégte am kontante dalal boroom xam-xam di borom xam-xam di ko yàlla baaxal ñu koy wax Moustapha Sarr ak Tijani di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla gën a guddal fanam waaye laata ñuy sore rek ñu nuyu képp koo xam ne yaa ngi ànd ak ñun ànd ak ñun émission bi di seetaan ñun di ñu déglu di ñu béggee waaye di jiital ci nuyoo bi xalifa général de Tijane Serigne Babacar Sy Mansour jiital xalifa général de Mouride Serigne Mountakha Mbacké ak mboolem xale yi si kaw suuf yëpp di ndokkee ci weeru tedd bi nga xam ñoo ngi ci di chehu Ramadan. di weeru barke di weeru yërmande lépp lu ci jaamu yàlla yàlla nangul na ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi delluwaat di nuyu ñëpp di ziare ñëpp di jiital ci néew bi nag mooy directeur bi di sëñ Sam Seck di ko ñaane yàlla yàlla yàlla doole ko taxaw yéen yàlla doole ko dëgëral daal nañ am invité bu ne waaye bi ñu am tey nag liñ koy dàkkantelee ak Tijaan liñ koy dàkkantelee tudd Seydi Mouhamadou Moustapha Sarr di borom xam-xam nag. bëgg lool Cheikhouna Tidiane waaye bëgg góor yàlla yi moo tax tey ñu fa séenee tey waxtaanee góor yàlla googu mi nga xam ne yàlla moo ko baaxal suñu biir yàllaa ko jël ni mu jëlee rasulullah teg ko jël rasulullah teg ko ci kaw noonu la jëlee Cheikh mu teg ko ci ñenn ji ci seen kaw ginnaaw bi rasulullah wéyee loolu lépp nag biru suñu borom la ndax innal fadla bi yadillaahi yu'tiihi man yashaa'u wallaahu zul fadlil aziim ñu fa séenee waxtaanee góor yàlla googu ki ñu koy waxtaanal tey nag mooy Seydi Mouhamadou Moustapha kon ginnaaw bu ñu nuyu àdduna yëpp nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi ànd ak si réseaux sociaux yi di duñu topp ci émission bi di jotaay mag yi te ñoo ngi am bëgg tey dalal ki nga xam ne mooy Mouhamadou Moustapha Atijani kon Mouhamadou Moustapha Atijani salaamaaleykum aousu billahi samil alim mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi wa radiyallahu an saaxibil xatmiyati wal katmiyati abil xabbaas ahmed ibnu mohamed alfatimi attijaani wa an jami ashaabihi wa muqaddimaatihi wa ahbaihi ajmaina wa baxdu faqad xaala allahu taala fi lxaqi sayhi wa ashaabihi rijalun laa tulhiihim tijaaratu wala bay'un an zikrillah wa iqaami salaati wa itaayi zakaati yaqaafuuna yawman tataqallabu fiihi quluubu wal absaar wa qad xaala allahu taala aydan fi lxaqi fi buyuuti asina allahu an turfa wa yuskara fiihi ismuhu yusabbihu lahu fiiha bilxuduwi wal aazaari ilaah kama taxaddama wa fi haza kullu rahmun ala wahaabiyina haza wa qad xaala allahu taala aydan fi xaqi mubhadahum ayu wahaabiyuna faman aslama mimman manaa masajida allahi an yuskara fiha ismuha wa saxa fi xaraabiha ma mana xaraabiha bayin ulamauna annaha منع وسيفة التي كان لتجانية بالحضور والآزال في الجوامع والمساجد وكسى حضرة الجمعة إذا ومن تعمل من وصف التجانية يحلمون أنهم أولياء الله لا خوف عليهم wala hum yaxsanuuna yaaw saas Ibrahima Jara ñoo ngi lay nuyu di la dalal di la baalu àq si weeru koor wi ñu nekk te di la baal àq di wax yàlla na yàlla boolu ñu di jël nuyoo bi nekk di si jiital suñu xalifa suñu baay sëñ Abdou Aziz Sarr yàlla na yàlla yokk fanam wéral ay cëram moo bépp kuy yeewoo tey si Ansar di jël nuyoo bi nekk di ko teg ci loxo docteur Mouhamed Sarr mu joxal ñu ko fépp fu njabootu maam ñàkku Sarr yeewoo tey ci kaw suuf noonu tamit la ñuy nuyoo ba tey suñu waajur bu jigéen di ko jox nuyoo bi mu daal koy làmboo yóbbaale si képp rek ko xam ne war laa jox nuyoo bi yow saas tey nag nga ñëw fii seet si ñu war waxtaane kan mooy Seydina Cheikh Ahmada Tidiane Seydina Cheikh Ahmada Tidiane yi waxtaane ko yomb na lool waaye tamit Seydina Cheikh Ahmada Tidiane waxtaane ko jafe na lool xam naa nag dig ma laaj lu tax ma jëfandikoo yomb jëfandikoo jafe ndax arab danaan diddaani laay temi ñaari waroo du ma sa ànd waaye nag li tax ma ne la Seydina Cheikh Ahmada Tidiane waxtaane ko yomb na moom Seydina Cheikh Ahmada Tidiane moo ñu xamal lenn ci melokaanam ban man cee jël as tuut waxtaane ko li tax ma ne la nag moom Seydina Cheikh Ahmada Tidiane waxtaane ko jafe na comme la ko borom barakaare bi waxan rek fa xul liman fi xiyaasi seybi mujtahidan xad xaasa idrakuma yax biyi maanaamu maanaamu bahrun fa laysal xaq yudrikuma waraaxa tawre xija wala kaana yaxwaawu kon boo xoolee Seydina Cheikh moom maanaam géej la goo xam ne xel mënu koo daj dara mënu koo daj moo tax may la waxtaane Seydina Seex jafe na kon nag ñu bëgg a waxtaan Seydina Seex lenn si mbiram ndax Seydina Seex xajut si émission waxtaane ko xajut si at waxtaane kan mooy Seydina Seex xajut si weer waxtaane kan mooy Seydina Seex xajul si bis waxtaane kan mooy Seydina Cheikh xajul si benn émission xanaa kay dañuy jéem a tënk ni rek li nga xam ne jàppandi na jéem koo jël jox ko askan wi yaa Oustaz Ibrahima Diarra xam nga balaa may balaa may del di nuyoo war sax di dugg ci laaj bi dafa boo jël léegi di si ñoom Serigne Babacar si indi fa lay salaam lu indi fa lay salaam xam nga boo xoolee xel yenn saa yi moom mooy xelaat mm. lépp lu la wax rek mm. sa xel ngay jël iti ngi ko fa laysal xaqul mm. déet xel yu direeku ma muy jot la nga xam ne mm. moom sëy naa seex làkk na ko mm. xam nga tey buñ la misaalee dara yow li ngay njëkk a defar utiliser sa xel bu fekkee boroom xel nga te nit dafa war a ànd ak xelam suñ suñ daara bi aj Baye Njaga Njaay Maxtaar Kaolack yàlla na yàlla guddal fanam wéral ay cëram lim ñu doon wax dee leen ànd ak seen xel suñu borom fépp fu mu waxee si alxuraan rek mm. ñu ànd ak seen xel lay wax mm. suñu Babacar Si nañ nee na yow sax boo ànd ak sa xel mm. li nga xam ne sëy naa seex jagoo na ko mënoo koo xam ndax loolu dafa rëy bu nuy gënee dugg si biir émission bi di nga xam sëy naa seex lim làmbool mais oustaz am na yoo xam ne xel nangu te day am waaw xam loo xam ne xel nu mu ko day am waaye bokkut boo xoolee li nga xam ne xel nanguwul ko day am. Mm. bokkut ak Seydina Seex. Mm. Seydina Seex boo itigee sa xel. Mm. mënoo koo daj. boo toogee ñu xamal la ko. mënoo koo xam. lu dul moom li nga xam ne. moom moo ko jël. xamal ñu ko si jëmm moom Seydina Seex. waaw moo moom Serigne si bëyitam bu rëy ba eh, ni eh, wala waxawaa juuda. wala waxawaa juuda. baaxarun. wala asbaha naasu xarxan fii jadwaawa mu mel ni kon loolu taxaguñ ne taxaw accès guñ ci loolu sax waaye ñooy nga Cheikh Ahmed ñooy nga Seydou Mouhamadou Moustapha Sarr ak Tijani di kontaan di am mbégte ci nuyoo bi ni nga jiitalee tey mbokk gi mu mel ni tey xam nga ne tey yow lépp loo jiitu la mbokk moo si jiitu wala tey nga jiital mbokk gi dégg nañ si biir sa sa sa iftitaax bi macha allah alhamdulilah rabbil alamin yéen yàlla gën la dëgëral allahumma la adru yéen yàlla sàmmal yéen yàlla watu la ñu am mbégte nag toog ak yow ndax xamuñu la bu baax mais miin nañ la am na lu joti jot miin ci yow te bu lay askanalee ba laata ñu dugg Cheikh la moo waral moom Mouhamadou Sall Sall ak Tijaan yi. xam nga boo xoolee tur bi ma nekkul man maa ko tuddee sama bopp. Hmm. sama sëriñ bu màgg ba. sëriñ ñàkku Sarr ibnu sëriñ mu Moussa ibnu sëriñ ñàkku mu mag ma ginnaaw ñun bin amee cofeel ci Seydina Seex moom nag mooy ki nga xam ne moo ñu tëbb ci géeju Seydina Seex ginnaaw nag boobu mu tëbbee si leeru naa Seex ñu am cofeel si moom ndax li yonent bi wax rek almarfu maa xaman ahaba ku si nekk ka nga bëgg ngay àndal kon booy bëgg na nga bëgg ku jar bëgg booba nag leen jël suñu ite ak suñu bëgg-bëgg lépp rek wékk ko si Seydina Seex mm. ñu defee noonu nag ñun bu ñuy wax Seydina Seex duñ àndal suñu sago mm. comme la benn waaye di wax rek mm. naan ñoom bu ñuy def seen i caaxaan seen i xol day gundaan waaye ñu bu ñuy wax ci Seydina Cheikh suñu xoli day gundaandaan amaana nag loolu la nit ñi gis ci ñun ak suñu jëm ju xeebu ji di ñu dàkkantele Moustapha Sarr ak Tidiane yi waaye kat ñun néew nan wala xeebu nan si ñu ñuy dàkkantele turu Seydina Cheikh ndax ñu ay simple taalibe rek lan wala sax taalibe lan bëgg a nekk amaana sax matagun sax taalibe waaw mm. ah, mais sëñ Babacar dafa am benn benn bu mu wax bu mu am solo la mm-hmm. fa baydatuhu tubaahu axi bi arfin fama li farati bàyyi kalaam kon yow yaay jéem a xeebal sa bopp waaye ci mbiru cheikh kenn du ci nekk di xeeb waaw kon ñu dugg nag ci waxtaan bi nag ànd ak seen waxoon saa Sarr ak Tijaan yi ñu bëgg a xam rek kan mooy Cheikhoun Tijaan yi waaw yaa Oustaz hmm. maa ngi kontaan bu baax a baax hmm. man bu woon Seydina Cheikh Ahmad Tidiane kan hmm. mooy Seydina Cheikh kon bu ma réfléchir si ginnaaw rek wax naa la Seydina Cheikh mënuñu koo xam waaye mën naa see xam si tuuti naa Seex boo ko bëggee xam xamal yonent bi rek xam Seydina Seex tax may la xamal yonent bi xam Seydina Seex boo xoolee mbooleem awliya wàlliwu jamono dafa am benn yonent bu ko suñ boroom booleel mu war a nekk royukaayam ñii suñ borom day leen tëbb si Seydina Aysa ñii suñ borom leen tëbb si yonte yàlla Moussa ñii yonte yàlla Yuusufa waaye boo xoolee Seydina Seex moom suñu borom da koo tëbb si maamam ja sallallahu alayhi ndax wax naa la Seydina Muhammad maam Seydina Seex la te dinañ dikk yow si lu tax ñu la maam Seydina Seex la boo xoolee Seydina Seex ma ne la xam ko rek xama Rasulullaay ndax moom moo ko wax moo ne léppam yonent bi la bañ nag sax ba ne boo déggee ma ne wax naa wala jëf naa bu xool li ma jëf xoolal la Rasulullaay jëf ba xam jëf ji nga fekk méngoo naa jëf jooju wala déet mm. mu ne fa isa samertu mi nii sayan mm. faxsinoo bi misaani sarea mm. fa in wafaa faxlamoo bihi fa in xalafa fadrakoo yow mi nga xam ne mu nga mujj jamono fekkuma fi mu ne Seydina Seex moo jëf nangam yaaw saas bul jëfe de xoolal loola ba xam rasulaay mas na koo jëfe bu ko rasulaay jëfee nga jëfe bu ko rasulaay jëfewut bu ko jëfe kooku nag mooy Seydina Seex li tax ma ne la maamam la doon mm. ndax comme la wax rek mm. ixlamu anna saydi si ahmada tidiane mm. kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaddahu nag yaa saas parce que xam nga ne bis ni ki tey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy maami seydina seex si ndax seydina Muhammad dafa toog bis ñëpp toog yiir ko saxaaba yi mu ne xaala kuntu wa allin mm. nuurayni bayna yaday laa mm. summa awdaxanaa fi sulbi aadama mm. walam yazal yanqalib naa min a zulbi ila zulbi ila abdou moutalib fa xaraja fi abdoullah wa xaraja fi abou talib summa ijtamaa nuurana fi asan wa asaynu fiihima nuurayni min nuur rabbil alamin yaa sa xoola wax ju rëy ji rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax rasulullahi dafa toog ñëpp yiw ko mu ne man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. nekk leer mm-hmm. Seydina Ali nekk leer mm-hmm. leer googu nag nekk ci kanamu suñu borom suñu borom nag moom moo jël leer gi mu dénk ko ndiggal suñu maam aadama ba mu ko jëlee toxal ko ci ndiggal aadama jaarale ko ci geneen ndigg men xëyratil karami men xëyratil karami booba nag la leer gi di circulé di dox di dox di abdu Moutalib mm. bu mu ñëwee si Abdou Moutalib nag mm. ñoom ñaar daal fay daje mm. ban fa dajee nag Seydina Mouhamed ak leeram génn jaarsi Abdullah mm-hmm. Seydina Ali ak leeram génn jaarsi Abu Taalib leer daal di xaajalowaat kee awaat fee kee awaat fee ñuy dox di dox di dox ba bis ñëw ñu dajawaat si Hassan ak Ousseynou nekk ñaari leer min nooru rabbul alamin si ban ban dajee nag Seydina Hasan ak Aseynu hmm. daal di daje foofu hmm. suñ boroom togg ko def salam say def hmm. ñoom ñaar ñu génn moom leer gi bee jaar si Hasan bee jaar si Aseynu leer googu nag di reeral Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom moo meññ Seydina Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ndax ginnaaw bi leer gi développé ba ëssi foofu Seydina Cheikh li tax ma ne la sëtu yonente bi la dëggan ndax yenn saa yi nga dégg am ñu koy diingat naa non non waaye Seydina Cheikh surtout yónente bi la ndax yónente bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne doomam yi buñ sëñ wax moo ko si gën a leen tamit waaye ràññeeku woon na Seydina Fatima Fatima moom moo jur Hassan si ma tënkal ko rek pour ñu def béreef ndax njëkkanteeg temps bi Fatima moom moo jur Hassan Hassan moom moo jur ku naan Hassan Musanna mm. Hassan Musanna moom moo jur ku naan Abdoulaye Kamil mm. Abdoulaye Kamil moo jur ku naan Mohamed mm. Mohamed moom moo jur ku naan Ahmed Ahmed moom moo jur ku naan Seynou Habidin Seynou Habidin moom moo jur ku naan Isxaq Isxaq moom moo jur ku naan Idris Idris boobu moo jur ku naan Idris Asxar Idris Asxar moo jur ku naan Abdou Jabbar Abdou Jabaat moom moo jur Habbaas. Habbaas moom moo jur Abdoulaye. moom moo jur Aline. moom moo jur Ahmed. Ahmed moo jur beneen Ahmed encore. Ahmed moom moom moo jur Salim. Salim moom moo moo jur beneen Salim encore. Salim moom moo jur Mohamed. Mohamed moom moo jur Ahmed. Ahmed moom moo jur Kunnaan. Muxtaar Muxtaar moomu nag moom moo jur kon naan Seydou Mohamed mi nga xam ne moom mooy bàyyi Seydina Seex kon ma indil la toxtale maamam yi rek Mouhamed moomu nag bi mu ganee jamono ndax sëy naa seex leeram bi moo ngi circulé waaye di ko gudd jamono moom moo dem tànn jigéen ju baax ju naan Aïssa bint Sonosi moo ngi dëkkan dëkk bu naan tiijaan moom la yaay sëy naa seex foofu la dëkkal ginnaaw bi ko Seydina Mohamed moomu jëlee soxna daal di am si soxna soosu njaboot bu barkeel ndax dafa njëkk am ku naan Roqeya si moom la bàyyi Seydina Cheikh njëkk am si takk ndeer mm. ginnaaw bi nag bi mu amee Roqeya mm. daal di juraat ku naan Seydou Mohamed mm. bi mu juree Seydina Mohamed teg xubu zamdaan di kan di Seydina Ahmada Tidiane mm-hmm. kon yaaw saas mm-hmm. kon Seydina Cheikh mu ngi noonu boo seen Seydina Seex mm. grand de sœur la am mm. grand de frère mm. amul petit sœur amul petit frère balaa nga balaa ngay àgg rek pour dëggal ci maam yi ni nga koy indilee rek pour ñu ñu seetaan di wax ni li muy wax ni lu ko lu mu maîtriser lu mu xam la ndax sama sëriñ Babacar wax na ko haza salilu muhammadin za salilu xaqan abu waxul asmaan wala bi nga indee salim boobu rek sama yaram dafa daw sama yaram dafa daw yaa saas ma dégg léegi nga ne seen naa Cheikh amul rakk bu góor amul rakk bu jigéen waa boo xoolee Seydina Seex magam moo tudd Roqiya magam bu góor Seydou Mohamed ginnaaw bi nag kan moo ñëw suma Seydul Xaarifiina Imaamul Siddixiina Xutbu Samdaani Seydi si Ahmada Tidiane Chérif Seydi nag moom moo ñëw juddoo nag si ñaari gor si ñaari ñu baax si ñaari tànneef Seydina Seex moo nga juddoo dëkk bu naan Aynil Maat xam sëy naa seex li ma la wax li sëñ Babacar si wax ne mm. maanaahu bahrun mm. maanaa sëy naa seex géej la mm. xam naa émission bi di daan bëgg yeneen ndax baatub aynun maat rek mm-hmm. man nga see tourné émission. loolu loolu lu ñuy defar incha allah da ngay wax si karaama Seydina Seex. Hmm. te nag karaama taxuñoo jóg. Hmm. waaye boo doon wax si karaama Seydina Seex. Hmm. juddoog Seydina Seex ni mu yéemee. ak ni ñu ko mag jàngale. ak li si am lépp. baatam ay nit maat rek mën nga see tourné émission. Seydina Seex nag moom juddoo dëkk bu naan ay nit maat. Seydina Seex kañ la judd. si weeru safar. moo tax yenn saa yi polémique bi am. dama naan ñu xamut ñooy wax. yaa eh, oustaz mm. Seex moo moom safar mm. Seex mm. wulida bi aynin maat xiila fii sahri safar salaas asara yowma yowma cent cinquante oh. Seydina Seex eh. moo ngi judd si weeru safar eh. bisu Seex judd ah. ba weer amee fukki fan ak ñett mm. ah mm. comme ni ko Abdoul Karim Banis waxe mm. mu ne mawlidul xatmi mm-hmm. xadadoo mille cent cinquante mu ne mawlidul xatmi xadadoo mille cent cinquante boo ko calculé da jox mille cent cinquante loolu la ñëpp wax boroom xam-xam si bind Cheikh Sukayrij loolu la wax boo demee Mouhamed nu baaba lool la wax mu ne xasala mahfaral ula boo ko calculé da lay jox mille cent cinquante kooku mooy Seydina Cheikh radiallahu anhu yow sax xam nga naa Seex lan moo yéeme si mbiram. Hmm. li ma la wax léegi ne yónent yi ku si nekk am na benn wàll yu bu lay nuróol. Hmm. Seydina Seex moom moo nuru maamam. Hmm. comme ni ma la koy tënkale rek. boo xoolee rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam. ixlamu anna sayyidal wujuudi. sallallaahu mujj awoo bi sallallaahu alayhi wa muy dikk jamono. dafa am ay yónent la dale si maam Aadama. ba sa mujj yonent bu mës a ñëw rek day ñëw waxtaan ak gars yi bu demee bu mission di waaye dem rek mu ne leen mankat dama doon ñëw ndaw laa yu luñ yónni woon waaye borom mission bi dina ñëw liggéem jeex mu dem ba yonte yàlla instant bi mujjee ñëw ñëw keroog ba mu ñëwee lan la wax yaa bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayhi mina tawraat amu basiran bi rasooli yetti min baxjo ismu ahmed mu leen e yéen waa ban israel man Seydina Isa sama liggéey mat na maa ngi dem waaye nag diir bi may demee am na kuy ñëw borom liggéey bi moom mooy mootal liggéey bi boo xoolee Seydina Isa diir bi mu waxee loolu ak bi rasoolaa ñëwee ay at yu bëri la man nga ne mën na ay juróomi téeméeri ak juróom-ñaar fi Seydina Seex nag noonu la nuróo maamam ndax boo xoolee amul benn yónnte bu mos a jaar rek te signaalu yónnte bi comme ni ko Mouhamadul Bousayri waxee si xam si mahamadat fataratu min rasuli ila basar xaw ma li ko anbiya benn fatara amul benn at amul benn weer amul benn minute amul benn seconde te yónnte bi benn yónnte jaar na fi te signaalu Seydina Mouhamed mm. Seydina Seex noonu la ko awliyaa defal ku si mel ni Seydou si mel ni Abdou Salam Bun Masis mm. Seydou Abdou Khadir Jelaani dafa ñëw taxaw mm. liggéey ñëpp kenn du werante góor yàlla ndax mm. moom li Seydina Cheikh askanoo si yonent bi moom noonu la askanoo si yonent bi Seydina Cheikh dafa askanoo si Assane moom askanoo si al si Ousseynou Seydou Abdou Khadir dafa ñëw taxaw ne man kat Abdou Khadir Jelaani li ma waran ak sama diggante sama borom def naa ko waaye borom mission bi dina ñëw te mooy kan mooy Seydi Cheikh Ahmada Tidiane Chérif xoola bi nga ko waxee diir bu yàgg la dund nañ fi daanaka juróomi téeméer at ak juróom ñett fukk ak juróom-ñeent Seydina Cheikh dooga dooga gën a jamono yaaw saas loolu fekkee ne Seydi Abdou Khadir Jeylaani kese moo ko wax bu la neexee bañ koo firndeel hmm. ku naan Abdou Salaam bun Masis nga xam ne góor yàlla la woon ñëw na fi jaar fi wax lu demee noonu hmm. kun naan Mouhamed bun Halen al Harami al Khatami wax na lu demee noonu ba ki si mujj di Idrissa Asxar moom mi nga xam ne maam la Seydina Seex wax na lu demee noonu kon nag naa Seex moo tax ne dafa nuru maam ginnaaw bi nag critères yi daje woon si maam yëpp daje nekk si moom si la ñëw nag gane jamono ma wax la lu yéeme si Seydina Seex yaa sa est-ce xam ne naa Seex fi xale di toll ñu jël ko yóbbu ko sa daara ja Seydina Seex booba fa la toll jógee sa daara ji ñëw si kër gi est xam nga loolu. Hmm? Hmm. Seydina Seex. wa fi aami set. xifsir xuraan. min Seydi Mouhamed bun Xaarun. wa Seex juróom-ñaari at yi nga xam ne moom lañu miin ñun. nit di ko jógee këram dem bi dal jàng. Hmm. moom naa Seex juróom-ñaari at yooyu si la. jóge daara ñibbi si kër gi. loolu du loolu de. xam nga lan mooy kéemtaan. ndax loolu miinal nañ ko muy am si jamono. Mm. bari na ay góor yàlla bu ma la ko doon limal duñ si jóge ba suñ mm. jamono ji sax. Mm. da nga am sa doom mu am 4 ans wala 5 ans. moo ko alxuraan. kon loolu du kéemtaan. ndax saafi loola def. Abdul Karim loola def bari ay góor yàlla buñ leen doon lim duñ si jóge. waaye rek ñu njëkkante waxtu bi. xam nga lan mooy kéemtaan mm-hmm. ah? bi. ah laakin na ana sayhi raa raboo fa xaala lahu tabaaraka wa taala hakaza unsila mhm. loolu mooy kéntaan Seydina Cheikh ginnaaw bi mokkale alxuraan ah. dafa toog rek li nga wax ci arab wax ko ci olof ni ñu lay seetaan dégg ko hmm. ah. Seydina Cheikh ah. ginnaaw bi mokkalee alxuraan dafa tëdd guddi rek gis boroomam hmm. dara doxul di saam ak boroomam hmm. mu jàng alxuraan si riwaayat bu naa riwaayat wars nga xam ne mag ñi fonkoon nan ko ngir barke gum barkeel mm. tàmbalee si alif laam miim mm. ba minas jinnati wan naas mm. suñu borom ne ko hakaza unsila nii nga ko jànge njàngin mu sell mi njàngin mu leer mi noonu laa ko wàccee kon kooku mooy Seydina Seex kon boo xoolee ginnaaw bi mu jàngi alxuraan rek ba pare doy loowut alxuraan waaw oustaz dama ba léegi may dégg nga ni moom sët la ci rasulullah te ma jàng suñu benn béytu moom seen Seydi Hadji Malick mu ni Cheikh Rasulullah ni ko anta marab bi wante wala bi ah mooy Cheikhu Akbar waaw lu war a mu dem ni ko léegi léegi néew doo sama sët sama doom waaw boo xoolee Seydina seex li tax Seydi Hadji Malick si borom parasol ba boroom xam-xam ba ah. ki nga xam ne moom boo bëggee xam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maanaam marab bi wante wala bi moom moo ko ko wax. Ah. waaye boo xoolee li tax maa wax ko ko. Hmm. xam naa da nga maa luqi sama lañ ci sax. Ah. waaye foofu mënoon ngaa bàyyi ñu doxal ba si kanam. Ah. ndax dinaan fa àgg. Hmm. ndax li tax mu xam ko ko. Hmm. daa am benn góor yàlla bu mu doon jëflanteel. ñu koy wax Seydou Mouhamed Al Kurdi. ban jëflantee ba pare nag. Seydina Seex booba la gis maamam. première bi Seydina Seex njëkk a gis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. loo ko njëkk a gis boobu la ko njëkk a gis. dinañ sa àgg xam na nag da ngaa lu semblant ndax boo xoolee Seydina Cheikh ñu dem ba tey si rythme bi nekkan dinañ àgg sa question bi si kàttan suñu ndax moom la waykat bi den wax naan wa bax dama xadamahul kurdi raaxa nabil moustapha safir xaala laa minata lil maxlu xaleyka min masaay tarix annaa mu rabbika wa anta waladi wa sayxuka abara na musnadi fadruk jamima bi ak xasaan xataa tafasa kuluma aw xitaa min xayri xalwatin wala ixtisaari subhaana rabbi daayimal kamaali hmm. moo tax nag oustaz dangaa lum ci sanb lañ foofu àgg gun yow buñ la deska buñ la askawele attijaani rek hmm. ñu mën nañ koo mën a xam nga boo xoolee Seydina Seex hmm. ginnaaw bi mokkalee alxuraan si mokkaleen bi yéeme doy loo wut alxuraan ji kese moom la la ibnu baaba di wax naan mm. wax baax da sa istaala bil xulóomi mm. fa jaala xamida kal mafhumi mm. ginnaaw bi moo kalee alxuraan dafa ittewoo sóobu nag si yoonu jàng xam-xam jàngam xam-xam si naasee dafa yéeme ñun ni ni mii ne njàng si daara di jëm di jël benn fànn lu si mel ni xaroot lu si mel ni bayaan manteex muy jafe si ñun si naasee dafa yomb si moom moo tax waykat bi ne fa jaxala xamida kal mafkum dafa def yi jafe yi mel ni yomb yi nga xam ne bu la ko waxee fa nga dégg financière gaaw saas ginnaaw bi mokkale alxuraan dafa am benn sëriñu daaraam bi ko njëkk a jàngal xam-xam mu ngi tudd Seydi moo ngi tudd Seydi Mouhamed bun Baxaafiya moom moo jàngal Seydina Seex xam-xam moo ngi ko njëkk a daral téere bu naan laxdar yi nga xam ne moom la maa ngi naan làq jariñu téere bu ndaw la si gisin waaye li si nekk si xeetu xam-xam kenn xamul ñu toll ginnaaw bi nag mu ngi ko jàngalee Laxdari mu jàngal ko mu xaddima Ibnu Rusdi bu téere bu raar léegi téere bu bari njariñ Ibnu Rusdi daa na trop ba mu ko ko jàngalee pare ndax léegi ñi koy jàng sax bëreetul ba mu ko ko jàngalee pare mu jàngal ko risaala bu Abu Seydi nga xam ne téere bi nga xam ne képp ku nekk si yoonu ngiiru Imam Malik war nga koo xam ndax téere bi dafa làmboo lu bëri si yoon doyloowu ko de seen naaseex bi mu pare sëriñ bi da koo jàngal téere boobu ñuy wax Muxtasar Ibnul Xalil gën a siiwe fii Sénégal si lawal boobu nag la am nuyuwaale suñu sëñ daara ku ko dégg rek mooy borom lawal nag sëñ Moxtaar Jaañ Kaolack Sénégal ku fi wax lawal rek ginnaaw ba mag ñi jàllee ñoom sëñ Moussa Ndiaye Mbos waaye ñun nag ki ñu nàmpatal lawal mooy sëñ Mokhtar Diagne bu Kaolack sëñ naa seex ginnaaw bi mu jàngee xam-xam ba jàng téere ma la wax dafa ñibbisiwaat nag si kër gi fekk si waat à l'âge de douze ans ndax li tax mu ñibbisiwaat nekku ne moom moo bëgg la ñibbisiwaat yow saa à l'âge de douze ans fekk na mu fees fees na si waxin waaye nag am na yeneen yoo xam ne dina ko dab wax yeneen matières yu war a ñëwaat yeneen matières a ñëwaat si kanam hmm. à l'âge de 12 ans si la Seydina seex ñibbisi hmm. oh, bi mu ñibbisee nag am naqar am tiis ndax lan moo ko waral sëriñam bi ko jàngal alxuraan dafa génn àdduna te sey yaaw saas lu waaye gàtt gàtt dégg-dégg xam ne képp ku la jàngal am na sew cër hmm. ndax Seydina Alin karamallahu waj moo doon wax ne fay na man xalamaka xarfan mimma taxtaaju fii diini foofu wa ko fii diini mm-hmm. Seydina Alin karamallahu waj nee na mm-hmm. képp ku la xamal benn araf mm-hmm. hmm, ci sa mbiru diine kooku sa waajur si diine moo tax nag Seydina Seex bi mu ñu bisee tiis boobu mu aman sëriñ bu ko jàng alxuraan di Seydou Mohamed moo xam moom moo génn àdduna Seydina Seex nag ñibbisi na toog si kër gi waajuram wu jigéen a si kër gi waajuram wu góor ne si kër gi bi mu toogee noonu rek ak taalibe daara bu doog a jóge daara ja xamul àdduna xamul lu bari waajuram bu góor gisoo waajuram bu jigéen ne ko man kat am na sens boo xam ne Rasulullaay moom moo warloo ñaari réussir ko si Seydina si Ahmad moom si moom mooy takkal ko soxna yow sax est xam nga ne fi waajur yu bari di essayer Sénégal moom mooy accompagner seen njaboot li leen Rasulullah sant lépp ñu matale ko boo xoolee Rasulullah wax na si benn hadis nee na inna min xaqi waladi ala walidihi an yuallimahu alkitaaba ah wa an yuxsina ismahu wa an yusawajo saa balaxa mission boobu nag le Seydi Mouhamed rempli Seydina Seex yonent bi nee na bokk na si àqi waajur sa doom ñetti yi rafetal ak bu juddoo ak ko téere yàlla bi bu mësëree takkal ko soxna wala bu fekkee jigéen la nga maye ko mu sëy waajuru Seydina Seex loolu la comprendre daal di dem takkal Seydina Seex benn ndaw su jigéen sun naan Aysat la tuddan Seydina Seex am na sens yaayam Aysa la tudd premier sono la tudd waaye nag li si yéeme moo soxna si yàgguñu ah, makka sax sannata at rek la fa sax su ma talafa seen asan daa koy fase yow Saas est que xam nga lan moo waral fase bi nga lan moo waral fase ñaari version da say am ñii dañ ne ndaw si dafa santan caam wala mu sant jéey ba mbiru diineem daawu ko matal waaye nag sens contraire amaan na mm. waxiila li yata farraxa ilaa taalibil ayn mm-hmm. am na nag ñu wax beneen version mm. te version boobu moo gën a yënu maana mm. doo ko wàcc pour féex pour mën a sàkku ji xam-xam mm. te loolu moo gën a logique te loolu sëy naa seex quinze ans la quinze ans ginnaaw bi nag ba mu fasee soxna si moo yaayam ak baayam ñu nekk ci kër gi dund bis ñëw rek tiis dalal na ko si ginnaaw tiis xëy gane siwaat ko ba fii seize ans ba mu amee juróom fukki at ak juróom benn ah tawafa waalidoo bi yoomil waaxit bi taaxoon financé dafa toog rek benn feebar comme bi bii dugg si benn feebar bu naan feebaru mbas uh-huh. moom moo dugg rek uh-huh. jël waajuru Seydina Seex bu góor bi uh-huh. si benn bis Seydina Seex yow sax loolu metti na waaye nag Seydina Seex moo ngi def ak digganteem ak ngorom kon su la déggee mooy mbas ak feebar yi. faalul sax ay nitu yàlla. non faalul ay nitu yàlla ndax boo xoolee suñu borom mi koy def faalul lima yurid la moom lu ko soob rek lay def xoolu lu neex ma sàmb wala lu naqari. même bu koy doon nitu yàlla bi sax du xalaat ne sax nitu yàlla koy du xalaat ne nitu yàlla mooy gën a méttile. kon corona bi tey bu yóbboo nitu yàlla warul warul jaaxal kenn. non loolu. mais Sénégal nag ñoom pour tey bu corona bi tey bu yóbboo nitu yàlla danaa xanaa xamul dara. ma jox la si nag foofu nag la yàlla wanee boppam. Hmm. est-ce que xam nga ne corona bi boo xoolee chiffre yi mu jël ñi ñuy tuddee baadool la ah amuñu si. Hmm. est mas ngaa dégg ñu ne benn taalibe corona moo ko jël. ñu fi dégg ñëpp ñu jël leen du lim nag ay patron la. pourtant am nañ mooy pour di dem si médecin ñu leen di xool seen kër clim du fa dugg waaye fan nekk suñu borom yebal fa corona bi suñu borom foofu jàngale. la doon def si feebar bi mu wàcce kon ñu ñëwaat fi nekkan Seydina Cheikh ba tey Seydina Cheikh bi waajuram waajuram nelawee bi mu nelawee dafa toog nag li ñu naan def diagnostic dafa toog ne teg xool ndax nit ki boo ñàkkee lu si bëri tey ubbeeku sa xel am na lu si ñëw lu si nekku tën Seydina Cheikh nag wa makka sabe aynin maat fi dars wa tadris dafa sax si aynin maat nga xam ne foofu la juddoo di xëy di jàng di jàngale si daara yi noonu la dem ba si njeexantalu at ma suma irtaan la mi na xay nin maat di Fass li Seydi Tayyib ibnu Mohamed li taalibil xelmi ba mu toogee nag ne man kat sama àll bi war naa koo yokk dafa jóge ay nit maat gi mu nekk jëm fan jëm Fass si buur yàlla bu mag boroom xam-xam bu naan Seydi Tayyib ibnu Mohamed Seydina Seex dem fa jàng fa yenn si ay téere ñu tënk ko rek daal fay jógewaat nag su ma ilaa xariyatu wanjal bu mu jógee Fass dafa def directement dëkk bu naan wanjal moom si feegu Fass fa la dem nag ngir sàkkuwaat xam-xam ba tey waaye yaa Oustaz Ibrahima li yéeme si dëkk boobu sëy naa seex dafa dajeeg benn góor yàlla ku naan Abu Hasan Assaasili dafa dajeeg sëy naa seex comme nii suñu bëri def ñeenti rek mun na ko jag xam ne kii mooy waaja lan la ko wax irji ila aynin maat li annaka laa budda an tadrak maqaama saasil ne ko e dellul dëkk ba ma jóge di aynin maat yow mënta ñàkk maqaama bi naan maqaama saasil muy yéex muy bañ yéex di nga si jot saasel yi imaam ndax jamono jooju maqaam boobu moom moo nekkan maqaam bi gën a kawe waaye si naa sax fekk boobu maqaam yi ko suñ boroom dencal ëpp na yooyu sax bu na loolu fuuf waaye bis bu ñu duggee si maqaam yi ko suñu borom dencal da nga xam ne xeebal na maqaama saa si la yooyu xam naa ci yeneen émission lay doon ndax mm. euh, ndaxte waxtu bi duñ ko fi may comme ni nga ko waxee waaye daal la jaar benn émission mm. daan la jël benn émission mu gën a yaatu mm. waaye comme yaa ngi woon ci euh, angel boobu ma dajee ak faak bonkal moomu bu ñu ko delloo ay numaat boo fa delloo euh, am na maqaam day gàdd wala bu guddi rek mais di nga jot maqaam imam Chazeli dellu na wala delluwul. non xam nga tax delluwul. Seydina Seex boobu xam na ne li ko suñu boroom dencal si kanam moo yu nekk si ginnaaw. te tey dañ ne wala sa doom woowee sa waajur woo la kan nga war a wuyu ji. waaw moo tax nag delluwul ginnaaw dafa avancé. ginnaaw bi nag bi mu jógee dëkk booba di wanjal si la doxaat topp désert bi di dem si dëkk ba si yàgg mu dégg benn góor yàlla. si jamono jooju ku naan Seyd Abdou nu ibnu Mouhamed Seydina Seex dem si góor yàlla woo di ko tarbiya Seydina Seex yow sax dafa sonn de toogul rek li ko suñu boroom déyal mu daat koy jël ndax nit ki faaw da ngay def effort damaa mës a dégg si Almaktoum yal na yàlla yokk leeram te tax si barkeem mu ne nit ki buñ la waxee dañ laa sol xam-xam aw xas la mu ne man mii Seydina Seex laaj leen ma jaaykatu sondeel bi sondeel bi mu fi mas a teg maa ko jël di ko fooge di jàng guddi loolu nag moom la Seydina Cheikh yëgan ba xamal na maqaame ko suñu borom desalan sax waaye nag dafa sóobu si yoonu sonn jëmma aw bi xaal a tarbiyatan hmm. ndax nit ki waroo toog rek. naan sama baay wala sama maam. laysa al-fataa man yaqulu kaana abii waaye wala al-fataa man yaqulu ah. moo tax waykat bi ne leen. Ah. laa taaxul asli. Ah. wa fasli abadan. innama aslu fataa. maa xadd hasal. nit ki sa baay wala sa hmm. Hmm. ki li ngay am yaa koy jug amal ko sa bopp. Hmm. Seydina Seex nag ma wax la dafa dem si góor yàlla googu. am fa juróomi at. di ko xëyal si daar ji di ko gont si tool yi. ba mu toogee foofu yëg ni. moom moo ngi évoluer moo ngi yokk mu ne xaaral sax man mi ma jógee fii dem dëkk bu naan Tilmisaan foofu la bàyyi góor bi jubale Tilmisaan. mais Tilmisaan am na ñu fa jël. waaw xam nga Tilmisaan lan moo fa yóbbuwoon Seyna Seex. Hmm. tafsiru Xuraan. ak kon bu mu jógee Anjal. Hmm. Tilmisaan la dem. Tilmisaan bu jaaree si góor yàlla boobu pare. def fa cinq cinq ans cinq la dem. la dem ngir wut ko fa tafsiral alxuraan. ba pare tamit jàngale xam-xamu xaddis foofu nag lu yéem a dafa dal Seydina fala mm. fa la amee fatxu fa la xame xibaada fa la xame xinaaya fa xame wilaaya fa xame lépp lu góor yàlla am foofu tilmisaan à en de de vingt ans vingt ans foofu la Seydina Seex amee fatxu Seydina Seex akbar fa la xinaaya ak jagri fa la amee suux bi mooy dëddu àdduna fala amee wilaaya lépp sëy naa seex à l'âge de vingt ans fekk ne ëmb na comme sëy naa seex boobu nag muy doxaat calculer ne ah man kat takkan naa soxna wàcc naa ko ngir am lu ma doon sàkku donte amaguma lépp sax am naa am na lu ma si am dafa tourné waat jëlaat soxna boobu nag dafa jëm jël benn soxna daal koy goreel takk ko am naa moom njaboot à l'âge de bent et un si la jël soxna soosu tuuti rek la doxalaat vingt deux ans takkaat beneen soxna soxna kii Mabroka la tudd kee Mubaaraka Mubaaraka nag moomu lépp lu sëy naa seex njabooti si kaw suuf ba jamono jii may wax ak yow si kooku la askanoo Mubaaraka Mubaaraka mooy ñaareel bi mooy ñaareel bi da sëy naa seex njaboot na ndax du la mën a tuddal doole ginnaaw bi ngay génnee aaw bi nga xam ne ba sa woon na ko hmm. après dafa takk mabruk hmm. mu amee mabruk après am mubaarak hmm. mubaaraka moom nag ah, moo ko jural ku naan Seyda Mouhamadul Habib xam naa boo bëggee a ah, rek ay jëm si Seyda Mouhamadul Habib moom nag ah. wa minhu tanazala suriyatu Seyda Ahmada Tidiane Seyda Mouhamadul Habib moom nag ba tey jii lépp lu cosaanoo si Seydina Seex Seyda Mouhamadul Habib moomu ba sëy naa seex bu ñuy génn am na ñaar la fi bàyyi. xam na ah, moom Mabrouk amuñu doom. moom Mabrouk Moubarak. Mabrouk dafa am Mabrouk am après am Moubarak. Moubarak am na ay doom mais Mabrouk amuñu doom. am na doom boo bëggee mën na la see dikkal. Moubarak am na ay doom. Moubarak benn doom la am. Moubarak te eh, kon fan la Seydi di génne ci Moubarak wala ci Mabrouk. si Moubarak. ci Moubarak ci Moubarak ci benn doom bi. si Seydi Mouhamad Habib boobu moo tax may la wa minhu tanazalat suriyal si Ahmad Tidiane mubaarak si Seyd Mouhamadou Habib boobu nga xam mu oh. mubaarak moo ko jur bépp mm. njaboot xalifa bi nekkal tey Seydina Seex si kaw suuf mm. si kookul askanoon mi génne ci mubaarak moom moom génne si mubaarak mm. ba Seydina Seex mi génn àdduna dafay wàcc ñaari doom Mouhamadou Habib Mouhamadou Kabir xam naa dinañ àgg ñoom seen xissa ndax am na lu ñu déelante ak seen waajur ba bam fii ji ak kàddu yom leen dénkan ginnaaw bi nag Seydina Seex toog ba si yàgg rek daa di natt boppam. ne war naa dugg lii ma lay wax lii lépp nag CNAC boobu jàppagul sax tarixa amagul tarixa li jiitu mi am tarixa sax. am na tarixa yu mu jàppan. waaye nag lii nii jàppagul tarixa booba nag la jug bëgg a si yoonu sofiyanke wu moom la la Mouhamad ibn Baba di wax suma summa irtato himmato xaaliya. ila tibaahi saadati suufiya ah fa jaxala fii taalib ahlullahi xaabid mm. kullu xaadat kullu xaabidin awaa mm. booba nag si la toog ni bala ngay àgg sa borom mm. faw am na yoon woo xam ne da nga war a jaar di yoonu sofiyankewu boobu nag itteem sa la yëkkatiku muy topp man ñu ko jiitu woon ku si mel ni Seydou Abdou Khadir Jeylaani ku si mel ni Bun Nasir bari na xam seen naa seex ba mu jugee. Hmm. lan la ko njëkk a def. Hmm. tarixatul xaadir la njëkk a jàpp. Hmm. léegi balaa ñuy dugg ci affaire tarix yi rek loolu beneen émission lay doon. ndax li ñuy tëral woon ci waxtu bi mat na. te daal émission bi neex na lool. waaye incha allah rab fi yàlla bàyyi. àjjuma bii di ñëw. moom la ñuy àggale émission bi. incha allah rab bi ndax comme mbiru télé la. te dañ lay jëlal temps. loolu dong la waaye fi mu nekk xol yi sedd nañ. ne dañ ko bëgg léegi jël ab ajuma yi bii di ñëw incha allah rabi mu duggal ñu nag ci fi nga xam ne moom la daanelee léegi muy jëm ci wàllu tarixa mag ñi nga xam ne xencu woon na leen tarixa xam ne jëloon na ko ak lu tax mu bàyyi ko ak kan moo ko bàyyiloo ñu fi yàlla bàyyee dañuy ànd ak seen Mouhamadou Sassa Atijani mu àggale émission bi ñoo ngi jéegul ñoo di balaax ñëpp di ko wax rek mu def euh, tàggutoo ñu ñaan yàlla ba àjjuma incha allah rabi ñu ñëw àggale fi nga xam ne moom mooy émission bi bismillah comme yaa oustaz li nga wax rek li duuf si nag wi euh, xajul si cin li euh. waaye xaj na si cin yi euh. ñu bañ koo yemale si benn cin rek séddale ko si cin yi ginnaaw bi nga ko séddale cin yi nag yàq ko si ndab yi jox ko askan wi mm. kon yow saas kontaan nan bu baax a baax mm. Mm. si seet si gii nga ñu seet si ndax wax dëgg fa yàlla gis nañ sa taxawaay rafet na si diine ji rafet na si xadara sëy naa seex ndax lama la wax rek suñu tàmbali seen naa seex waxtaane ko xajut si at xajut si weer xajut si semaine xajut ci bis xajut si minute xajut si seconde xajut ci cees ndax biram moo toll noonu moo tax ajjuma bi ñëw dañ koy continuer incha allah rabbi waaw loolu maa fi muskila amul benn problème incha allah ajjuma bii ñëw dañ koy continuer incha balaa waxtu bi duñu duñu tënkaat rek mm. ñu bàyyi nga rek sa dernier kàddu nuyu ñi nga war a nuyu rek ba àjjuma incha allah kon ñoo ngi yemale foofu suñu kàddu mm. di tàggoo tàggoo bu du tàggoo mm. di nuyu nag borom kër gi nga xam ne fi leen def émission bi di Muntaga ak soxna Kumba njaboot gi ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu waajur bu jigéen soxna Amine Ndiaye di ko wax ne yàlla na yàlla guddal ko suñu kanam. amiin fekkee suñu njëriñ. ak nag suñu kilifa tey si kaw suuf. Mm. suñu lépp si kaw suuf. Mm. di suñu mag. Mm. di suñu lépp. Seydi Mouhamed Sarr. ak Tidiane moom mi nga xam ne. yenn saa day man. si baat ak Tidiane gi. ndax nee na moo ko moom. noonu la ñuy nuyoo ñëpp suñu doom bàyyi. ñu jël nuyoo bi nag di ko teg si loxo Serigne Moussa Sarr. mu daal ñu koy séddale suñu doom bàyyi yëpp. ak suñu rakk yu jigéen yi. ak suñu soppe yi. ak ñëpp rek. ñoo ngi leen di nuyu. Mm. fépp fu soppe nekk. ñu mm. nekk si réew mi. ñu mm. nekk si bitim réew. ñëpp rek ñoo ngi leen di nuyu. di leen baalu àq nag. si weeru koor yi di leen baal àq. di nuyu tamit suñu bàjjen yi yëpp rek ñoo ngi leen nuyu ak suñu nijaay ñoo ngi leen di nuyu. di leen wax ba beneen àjjuma. incha allah kon fa tabarakallahu yéen a ko déggandoo. ñoo ngi woon fii tey ci Ceddo kër si kër sëñ Muntaga di taalibe Cheikh Tijani def na émission bi fii ak Seydou Mouhamadou Sassane Atijani di nuyu soxna yi nga xam ne moom lañ fekk ci kër gi di nuyu kii réalisé émission bi di Seydina Ousmane di ko ñaanal yàlla na yàlla dolli guddal fanam di nuyu mboolem koo xam ne rek yaa ngi seetal émission bi jotaay mag ñi di nuyu Serigne Ndiagne Bousso tabarakallah Seydou Mouhamadou Sassi mi nga xam ni responsable muxtafir fi asa aba wal azadi Seydou Mouhamadou Ousmane si Dabbaax ñoo ngi lay nuyu baax di la ziyaara Cheikh Cheikh Oumy Mbacke Seydou Abdou Karim Mbacke ak mboolem xalifa yi mboolem kilifa diine ñoo ngi lay nuyu di la ziar di la wax di ñaanal yàlla réew mi yàlla fi yaatu jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi